Bienvenue maa ngi ñëwaat yeesalaat yeesalaat ci 18 safar bi moo dellusiwaat Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum yéen yi nga xamante ne saa su ne yéen ñuy topp di ñu euh, ci li nga xamante ni mooy émission bi nga xamante na loo xam ne kenn doon ko laaj ah, tey nag ki ñu seet xam naa ne nag moom dinañ am loo xamante ne dinañ ci xuus tuuti waxtaan waaye nag balaa boobu noonu dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu gën koo xam nag ki nga xamante ne moo di Seck Xasida borom ren ak suuf. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel tey jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi leen Mouhamadulil Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wér di siyaare suñuy waajur bu baax di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi te weer man Seck Xasida borom ren ak sunguf maa ngi leen di nuyu bu baax mboolem kuy dégg sama kàddu di seetaan image bi di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan suñu borom defal na ko ci barke Sëñ Tuubaa xasida yi jërëjëf. macha allah ñu ngi lay dellu di la ziar mais xam naa ne jafe nga nag waaye comme que jafe nga nag ñu nag dañoo sopp ndaxte saa boo jafee rek dañuy wër tamit dama la gis mën nag loxati naa la ndax askanu Sénégal yi dama doon laaj naan ma waa jii mooy seen nii te mu soloon xabtaan bu bële bi yoroon ba xam ne bi yoroon ni fooy wax jooju nag balaa ma cee ñëw damay bàyyi nag ñu xuus tuuti ci li nga xamante ni moo di wàllu liggéey bi euh, su ma amee lu ndaw lu ma lay laaj ci sekk xasida lan mooy waaw sekk xasida sekkare weesuwut sëñ Touba xasida yi euh, boo gisee may la weesuwut sëñ Touba xasida yi man lu ma am sëñ Touba moo ko defal ak xasida yi ci lay njëkkee lu ma mën am ci àdduna ren ak sunguf dafa doon loo xamante nii suñ borom moo ko yëkkati boole ko ci sama dund ngir ma war koo defaral jaami yàlla yi waaye xasida yi mooy sama sama sama lépp lépp lu ma munta am cere nag sunguf jërek ci xasida day laay dem am ko ca wala sëñ Tuubaa liggéey bii nag ñu nekk dafa doon loo xam ni dafa xaw a dafa dansé te ñu jug ngir di ko woote dañoo bari ñii ab dërëma leen ciy dugal ñii bëse leen ciy dugal ñi am loo xam ne dis ni daanaka defar seen àdduna moo leen ci dugal ngir ñu def ko waaye du lu ñu jàngi du lu yàlla dogal ci ñoom du loo xam ne dañuy xool ne mbiñ mi neex na ñu ñu dugg ci ngir jëm caa gañe ñun ñi nga xamante ni ñoo toog jàkkaarloo ngeen di wax a yéen nag yooyu benn yitteeluñ ci dara ñëwuñ ci luy faj aajooy jaam ñi képp mooñ ci yitteel dóor mi nag bari na ci lool dóor mi bari na ci lool waa lépp weesuwut sëñ tubaa rek comme ni ma ko waxee léegi ñun suñ dara génnul sëñ tubaa lépp sëñ tubaa ko yor ku jàpp na yor nga dara ci ñun ku dul yàlla ak yonent beeg sëñ tubaa rek nax nga sa bopp ñun suñ lépp sëñ tubaa ko yor yàlla dafa dogal nag euh, comme ni ma ko daan waxee rek noonu laa koy waxee man jànkatub xasida laa comme ni ko ñoom sëñ Xaadim Gueye di defee maa leen di nuyu bu baax di leen ziare ñoom sama jëriñ yooyu sëñ Ousmane Diouf sëñ Xaadim Kébé sëñ Cheikh Diom Baye ñëpp maa leen di nuyu bu baax di leen ziare ni ñu koy defee ci àll bi di ko fanaane jàng ba ba set doon ay jàngkat noonu lañ ko doonee ñun noonu lañ koy defee nit ñi duñu yëkkati avance dañuy jox dañu fay ngir ñu jàngi xas dee si ñu koy def lii daa doon lu mënta ñàkk ci ñun yàlla dogal ko ci ñun ngir ñu war koo def ngir wane ko sénégalais yëpp teg seen bët ngir ñu faj seen aajo boo gisee loolu noonu sëñ bi taw fexele ma ko muy ndaw ñi sopp ma di jël seeni photo ak lu ñu am ci àdduna rek mooy lu baax ñu indi ko jox ma ko wala ñu jël ko wane woo ko ci seen i jëmm ngir sama jëmm ji ngir yàlla ak yonente ak sëñ Tuubaa xasida doon ko waral du leneen ma leen di siyaare bu baax ñoom kuy sama soppe wala nga koy sama am di jàmm ngi leen bu baax di la ñaan ci réew mi jàmm di ñaan suñu borom defal na ko ci barke sëñ Tuubaa ak xasida waaw boo gisee gis nga mi ngi nii mboolem lu may liggéey mi ngi nii sama logo bopp moo ci nekk man lu may def day leer sama numéro yi mi ngi ci muy ñaari numéro yi ma la wax koo mën a doon ci na liggéey bi ñëw ci yow da ko ci gis incha allahu rabi taala lii nag daa doon ubbeekaay ubbeekaay la bayre la wàllum xaalis fan yii liggéey naa fi bitel boo xamante ni 500000 laa koy joxe téeméeri junni bii nag du ma wax kenn li ma koy joxe tant que soxlawoo ko ba ñëw ci man laaj ma ko wàllum bayre la boo bañee bayre bul laaj bitel bi yaa ngi dégg baax ubbeekaay pour xaalis. boo ko bëgg tamit bu ma laaj bitig waaye lu mu ci man di doon daal soo ma woowee ci numéro yi insha allahu rabi taala lu ci bari dinaa la ko leeral wax la nañ koy defee wax la la ca war a dem lépp ngir nga jot ci waaye lu wér la loo xamante ni ci diiru fukki fanak ak juróom man boo ci laa koy garante ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sëñ waaw ci laa koy garanti waaw lan moo tax lan rafet jot rek ci ne la ma bëgg diiru fukki fan ak juróom yooyu noonu suñu borom man la ma caa dimbale ba la ma ci dama ci rafet njort rek te koy ñaan yàlla man du ma saltige du ma ne lii day am force yàlla laay ñaan waxtu yàlla tombeeg mu war war ne amin nag ma raay ci sama kanam kooka raay ci kanamam suñu borom defal ko lam bëgg waaw man noonu lay liggéeyee waaw ah waaw waaw waaw bii la mooy bii. Ah. waaw. <laughs> du dara de bidel bi uh-huh. dara newu ci lu dul wàllum kaaraange ak mbirum cat kaaraange ak mbirum cat da fekk sax ñu jël bidel yi waaye bari na ci bidel yoo xam ne leneen ak lu ñuy liggéey wàllum rab ak mbirum saytaane yëpp waaye xam naa li ko xamut a tax rek waaye lii fi nii li ci nekk mooy mbirum cat ak mbirum kaaraange. képp ku cat topp sonal la waaw jarbu nañ ko ba xam liggéey bi feeg juróom-ñaari at ku ko sangoo ci juróom ñetti fan ak lañ koy booleel incha allahu rabi taala feeg juróom-ñaari at cat mën na laa ba ñu duggaat fenn ginnaaw boobu yàlla jàllee ak yonente bi ak sëñ Tuuba yaa ngi dégg ak xaside yi ne ci suñu dënd noonu la demee waaw. am benn mhm. mhm. mhm. loo lépp loo ci tudd dinaa ko génne wan ko ba Sénégalais yëpp teg seen bat bant bi ngay wax bii. loolu damay bañ a tudd sax par jaay ko muuma. du ci loolu du gis nga lii lii xoola xoola fii lii gis nga gis nga ko lii ngay wax. waaye du dara. du la def dara lii liñ ci jublu mooy toj liggéeyu jàmbur bant bii ngay séen bantorat la bantorat yaa ngi dégg baax ci biiri armeel lay sax waxuma nag ci bàmmeelu jàmbur saxu ci ci biiri armeel ci lay sax sénégalais yi looy wax na doon lu leer saxut ci bàmmeelu jàmbur mi ngi sax ci biiri armeel yaa ngi dégg baax garab gii lawbe du ko yet <laughs> waaw lawbe du yett garab gii waxtu woon koy wutit lawbe du ko fekke mbokkum lawbe it du ko fekke waaw garab la goo xamante nii da ngay dem jënd ko ci juróom ñaari maamam garab dafa doon loo xamante ni lu dansé la rawatina gu sax ci biiri armeel toj liggéey lañ ci def liggéey bu mën a nekk ceew yow ba ngay gone ba doon mag mu nekk ci yow la am na sunguf boo xam moom la ñuy jël jaarale ko ci pax yi ngay seen gis nga ma yaa may gis nii waaw boobu sax boobu sax dina am na taw sax lu ma leen lu ma a laaj. bi. waaw balaa maa ñëw ci xeet yi nga xamante ni gis naa ko fi. ci loolu nga téye laa lay laaj ba tey. Hmm. ci li nga xamante ni bëggoo sax nit ki tudd ko waaye maa ngi tudd ma. ndeysaan ndax askanu Sénégal ñoo ko commenté. Hmm. suñu combat saa kees rek rek. gis nañ la kër saa nga téye ay fooy téye loo xamante ni kat. lu ñu mhm. mhm. naa mhm. danaa ci wax waaye du ci yàgg nag. Ah, ndax ñun waa diglu ma xamal ndax xamal ndax duma ci yàgg. waaw lañ ci yitteeloon suñu borom defal nañu ko. mooy ndam lañ bëggoon tam nañ ko Sa maa ngi koy siyaare bu baax sama xarit la sama lépp la nit ku baax la maa ngi siyaare baax Omar ñu gën koo xam ci Balla Gaye di magam ak malal noo ngi leen nuyu baax di leen ziare ak mboolem gars yi ànd moom ñëpp Buuse Assis Ndiaye Baye Ndiaye Masata ñoom ñëpp noo ngi leen di nuyu baax di leen ziare yàlla dogal na ne ñooñu ma tudd sax suñ borom dogal na ne miinantewu ma ak ñoom carrément waaye nit ñu baax lan te gis naa leen ci ginnaaw Salif ñu koy jàppale Baye Abdou Ndiaye maa ngi koy siyaare bu baax moom it di nit koo xam ne dis ni comme li ma indi ci Salif moo ko indi ci moom maa koy siyaare baax di ko ñaanal rëg lii la suñ mbir mënoon a moom ndam lañ bëggoon ci moom yàlla defal nañu ko moom it yàlla na ko yàlla defal jàmm ba combat bu mën a amaat suñu defal ko ci taw feex ba nam ko bëggee mu amee ko noonu waaye Salif daal ñu ci ginnaawam te nañ jàpp ne mu mën a am Seck ngi ci sa ginnaaw laa ci waaw lii rek laa mën a wax ah doy na waar hmm. hmm. bu jël waa école de lutte Balla ko ci koo mën a doon loo moo mën a jox xamal ne soo ma ko joxee ma lekk koot yaa ngi dégg xamal ne dinaa fexe ba ñoom ñu am ndam waa école ligue Balla Gaye man ñoom laa fi nekkal. dama waaw sama mbokk mbëri sama mbokk képp koo xamante ni nag na combat na la sekk ngi sa kaw nëbbu tuuma kay. waaw sekk ngi ci sa kaw waaye keneen ku am feneen mbër. bëgg ñëw ma jàppale ko. Uh-huh. danaa góorgóorlu ba def sama kéemtalaay kattan mboolem lu ma yéene Salif ma yéene ko kooku ngir mu am ndam ndax kat dañoo am yaakaar ci man. dima ñaan loo waaye nag man Salif laa fi nekkal. ak waa kër Double Less loolu moom leer na ma. woo ko waaye boo ko laalee rek de boo ko laalee wuy ma boo leen laalee waa école di lit Balla Gaye boo leen laalee caaroy tuxumbuur dana mel ne ba ngóor jaaye mbaam ma ne noppi dem loolu koy maa ko wax ah, ci affaire boobu gannaaw ba nga xamante ni secret bu diggante waa kër Double Less kuréel bi nga xamante ni ko nag wallaahi wallaahi nit ku baax la. nit ku gore la man li tax wax loolu du question ngir leneen waaye dafa am boo xam ne bëgguma cee yàlla defal jàpp moom sax di nuyu tamit yaayam yal am na fii loo fi tudd danaa ko génne. am na lu ma gis bëgguma tudd tudd ma loolu yëkkatil ma loolu lii lan lii ay doomi neew la neew. new waaw ay doomi new ay mhm, ay doomi new la boo gisee lii ay doomi new la ay doomi new li ma ciy liggéey nag li ci ëpp solo mooy ko yor sa palaas ñu bëgg la faa jëlee wala nga yor sa kër goo xamante ni da nga faa luye ñu bëgg la faa génne ci loo xamante ni teguwut ci yoon wala nga yor loo xamante ni da ngaa bëgg mu naat ndax doomi new daanaka mook salaan so réewunu man damaa dem jàngi garab yi xam ko new lu ci baree bari bari day jébbi ñaareel ba new gu dee man am na nag waaye bala nga koo gis faaw nga sonn kon moo tax fi mu ton nii lu ma ci am rek ab lim lay toll nag du ma wax lim bi nu mu toll dama ko ci liggéey su fekkee rek ngaa bëgg sa alal gën a yokk ci kër gi bu fekkee rek a bëgg mu gën a naat ci kër ga laa lay ñëw soxal la ko fa suulal la fa bàyyi la fa bu dee ca place ba nga xam ne dangay ni da ngay xëccoo wàllum xëccoo la ñu bëgg la faa génnee bu soobee yàlla bu ko liggéeyee moom wax ja jeex na moom doomi la mi ngi nii xeetu xaatim yi mu bari na mbir bari na ay mbir yoo xamante ni pour faj aajo rek ko tax a jóg. faj aajo ko tax a jóg. lii nit ñi yittewoo daal ci wàllum liggéey bi moo xam mu doon ndomba moo xam mu doon kaaraange moo xam mu doon mbirum cat moo xam mu doon loo mën ci àdduna daal ñëw ngir bëgg ma liggéeyal la ko xaatim yu yooyee donc lay liggéey. sunguf ban la bii nii. waaw xaaral tuuti may ma jëlee waaw bii nii. daam ku ma ko liggéeyal moo war koo jël si wàllum émorite la émorite moom lay doon laax nga koy def boole kook moom lekk ko ci diirub juróom-ñaari fan traitement la traitement la waa émorite noonu mu amee noonu ma ko amee émorite gii di ko faj noonu laay góor gu tële noonu laa yore ay bagaasam xam nga lu ko waral fa mu ëpp ak rab seeni sunguf mi ngi nii seeni sunguf moo ne fii waaw wàllum rab ak wàllum fowee sa awra mooy tax ñu baree baree bari dem ba nga xam ne gis ne mandiyu nag day jeex moom hmm. ndax xam nga loolu mandiyu ndox mi góor di war a génnee ci biiram uh-huh. mu jaar ci sàkkaram génn uh-huh. day jeex waaw ñu bari xamuñu ko nag te dañuy dem wuti ci doomi pharmacie yi boole ko sunguf di ko joxe <laughs> gaa yi li ñuy def xam naa ko de damaa noppi rek la ñuy dem wuuci ko dëbb ko ba mokk boole ko sunguf di ko jox nit ki man maa la wax li man sekk xasida ke ko man dëgg dana boole juróom-ñaari garab xam ndayam xam baayam dem jënd ko naam nangam naam nangam naam nangam jat ko ba xam ko ñëw defar ko di ko di ko joxe man bi ma cër juróom-ñaari garab la yaa ngi dégg baax gaa yi nag ñu ngi joxe lu ne naan pour faj ngóor a laag yooyu noonu waaye tubaab bi joué na <laughs> waaw tubaab bi joué na ji bu baax a baax a baax la dañuy dem wuti garab ga nga xamante des nii ku néew kattan ci wàllum tubaab dañuy dem dëbb ko boole ko sunguf ñëw jox la ko bu ko defee nga jàpp na yaaray gaynde ga nga xam ne ñaari minute boo ko ci amee daal di wàccaat gii nag moom mayor bu efficace la goo xam ne képp ku ma ko jox bu soobee yàlla danga ne ma dolli ma waaw waxtaan tudd tudd ja bokkul waakar

te mënoo féete ci ñaar yëpp te ko féete ci moom fésal ko war nga wane ko am na ñeneen ñu nekk ñoo xam ne dañ ne féete wunoo ka nga féeteel mën na la caa baatal man na la caa wax lu la naqari nit dafa war dignité kuy génn di wax ci diggante Macky Sall Sonko na doon loo xam na doon loo man te lu mën a yegg si sa kawit nga téeku Macky Sall kilifa la moom la fi yàlla teg fi mu ne nii pour l'instant néewuma moom laa àndal néewuma Sonko laa àndal Sonko yi daam bëgg mooy li mu bëgg mooy li Macky Sall am am ko am na ci pele droit yaa ngi dégg baax kenn ku ci la gën ci yow yàlla na ko yàlla defal man daal lii laa ciy wax waaye nañ góor góorgóorlu baax jeunesse Sénégal bi bu kenn sonn yaa ngi dégg bu kenn am ak njàqare man nag jeunesse bi laa fi nekkal te it ñoo tax may wax sama kàddu yi may wax képp koo xam ne dis nii daal la gën ci yàlla xam na ko man na ko yàlla na la ko yàlla defal mu doon lu woyof waaye ku mën a doon ci àdduna rek nag a bàyyi xel askan wi ndax lu ñu mat a bàyyi xel lañ am na ci ñoo xam ne dis nii ñu ngi dugal ci kaso yi ci erreur am na ci ñoo xamante nii ñu ngi leen di indil problème ci heure am na ci ñoo xamante nii dañoo ñàkk te amuñu yaa ngi dégg baax te ki ñàkk yow mi yor yaa ko war a dimbale kii fi yàlla tegu kunu kus néew muy Macky Sall maa ngi koy conseil loolu ngir mu jàppale ñi nga xamante nii ñoom ñoo fi nekk te sonn ndax lu am njariñ la kenn ku ci nekk lay sa yéeneeg lay sa mbébét yàllaa ko yor moo ko xam yàlla na la ko defal man Seck Xasida lii laay duggee ci wàllum politique leneen lu dul ku ci ñëw nag ngir bëgg ma ñaanal ko sañ naa ko

di jaajëfalaat Cheikh Ibrahima Fall Lam di jaral lakkal Serigne Saliou Mbacke di ñaanal moom mu Cheikh mu Mountakha yàgg fi di ñaanal di ko ñaanal suñu ñaari wajur di ko ñaanal adduna bi yëpp waaye di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan ci doole yàlla ak yonent bi ak Sëñ Touba mu defal na ko waaye daal maa ngi leen xamal ci ne mboolem koo xamante ni yaa ngi ci métier mi ñu nekk bokk na ko seelal ta rafetal ko te teg say biir ci yoon ngir yàlla ak yonent bi ndax fi ñu doon nii kat sëriñ si am gàcce bari bari na lool maa ngi gis ci gars yi ku ne di wax nit lu mu xamut bu mu ci dugg lu mu mënut bu ko def maa ngi siyaare ñëpp di siyaare sama wëllëree yi ma ko seqal ñi ci gën a fés ak ñi ci nga xamante ni ñàgg ca biir te bañ a génn ci image yi ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm kenn ku ci ne lay sa bëgg-bëgg yàlla defaloog ci barke Seexul Xadiim waaye ñi nga xamante nii ñoo ne ci mboolem diaspora bi yëpp adduna bi kenn ku ci nekk nag bul yëkkati sa xaalis di ko jox koo xamante ni ko wala gëmoo ñoo ngi ñaan ci réew mi jàmm di ñaan yàlla defal na ko di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi fanam ba li mu yéene maam Cheikh Ibrahima Fall mu defee ko nam ko bëgg di saale umma islamique yëpp kilifa yi nekk ci àdduna bi yëpp bawunu kenn noo ngi leen ñaanal jàmm ak tawféex ak samadatu daarin ci doole sëñ Tuubaa xasida yi sunu xol sedd na ci ñëpp